jàmm ji info point net informer, xibaar yu sell te waaye bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal bii nga xam ne moo di jàmm ji info. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur ñu ngi ci euh, jamono ju nekk ak saa su ne mu mel ni rek saa suñu yëkkatee itam suñu kàddu itam muy kaddu goo xamante ni saa su ne ci wàllum actualité waaye itam ci wàllu li nga xam ni soxal na askan wi ci biir réew ak biti réew. mu mel ni nag dootuñu présenté sunu sang bu baax bi lee di sang Barham Ndiaye di ko santaat bu baax di ñaan sunu borom doole ko kattanal doole ko defal tawféex tey si rek na yaaxa defal ko sax a dara ni ki barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba saa suñ ko yittewoo ci lu mindoo li nu mel mbokk yi xam ne ñi jot bariwul waaye daf ñu yombal li nu mel balaa ñuy sori dañ koy daal di bàyyi kàddu gi sang bi salaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Mountakha ñu lay nuyu. di la ndokkeel di amaat ci yow mbégte ak kontante te di la ndokkeel sa liggéey bu rëy bi nga nekkee eh, doy doy na rek sa turu bi nga tuddee jàmm ji info mm-hmm. jàmm ci la ñëpp xaj information bi nag mooy di informer nit ñi mm-hmm. naka la war a def ba am jàmm liggéey boobu ku képp ku ci nekk di ñaan yàlla subhanahu yàlla dimbale ci loolu baax ndax bu ñoom leen yow dëkk bi daan rafet ñëpp dañu am jàmm ndax jàmm rek leen leen di attan kon ñoo dëkk baax di siyaar ci loolu jërëjëf alhamdulilah jërëjëf euh, sang bi ci néew yu sell tedd yi tabarkàlla mu mel ni rek dañuy njëkkee tuuti ci li nga xamante ni ki jamono muy actualité boo xam ni nemmeeku nañ ko jamono yu saa suy ne ñuy gën a dem ci jamono tam ñu nemmeeku muy waar euh, muy euh, diggante sunu mbokk jullit yi nga xamante ni moo di Palestine ak Israël euh, gis nañu muy daanaka mën nañ ne wax taarix bu yàgg la lu yàgg la waaye saasu ne bu ñu demee ba jàpp ni jàmm ngi dellu si rek mbir yëngatuwaat sang bi laaj bi ñu la ci njëkkee rek mooy ginnaaw taxawaay boobu an ban jàngat ak ban gis-gis nga ci gis Euh, bi ginnaaw si am na laaj boo xam ne dama ko ci tegaat muy li nga xamante ni tam ni ñu koy waxee sunu mbokk jullit la naam euh, waaye tamit am na réew ñi nga xamante ni ay mbokk jullit lañu wër diwaan googee euh, waaye tamit di leen seetaan naan jàkk di leen seetaan ñuy dund ci ay tolof tolof ay mettital ay bunduxatal hmm. sang bi foofu dañuy njëkkalee sunu kàddu jërëjëf salaatu wasalaam ala rasulillah ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu aalam islam bi yëpp ku fay a mën a nekk ñu lay ndokkeel ci diaspora bi di am mbégte ak kontante toujours boo toog di waxtaan ci waxtaan yu mel nii li ma waxoon léegi laay répété ci yow sëñ Mountakha ñu lay sant di la gërëm ndax yuntal xamat dafa waxoon ne ba lu ko andi wala aaya na ngeen jóg ngeen jot ci man donte mu nekk benn aaya rek te moom moo njëkk wax na al balaxtu yaa rasulallah mu ndax batu yaa rasulallah hmm. xal balaxtu mooy ndax jotal naa mm. saxaabi ne ko balaxtu yaa rasulullah mm. kon nag comme jotal nag moom itamit ñu muy muy mu ne muy sàkku na ci ñun nañu yéen tamit ballugu anni walaw aaya mm-hmm. yow nag yaa ngi jotal diine ji ak si ak sa yërmande gu yaatu mm-hmm. ak sa itte bu rëy ak bàyyi lu bari pour mën a fexe jullit yi nekk benn mm-hmm. ñu dëppoo ci lislaam te lislaam li ko tax a jóg mooy jàmm allahumma anta salaam wa minka salaam wa ilayka yaxudu salaam yàlla mooy jàmm jàmm ci yàlla jógee te jàmm ci yàlla yi delluwaat ñun ñëpp nag li tax yàlla bind mooy jàmm rek lañu yàlla bind yàlla bindu kenn ci ay ñëpp jàmm leen bindee fitra bi yàlla bind doomu aadama bi fitra ak la kon nag ku màgg nag yaay soppi sa bopp moo tax ñun sama wax ne ni kullu mulul ala fitra ku nekk rek sa fitra muy lislaam soo màggee nag fekk say parents ñoom ñooy soppi ñii nekk ñu ne mbaa ay nasaraan lañ mbaa ay majus lañ. Mhm. aw bi naf sika mbaa yow sa sangu sa bos bopp aussi bii di islam nekk ci leneen waaye sa fitra mooy l'islam. Mhm. comme islam nag mooy suñu diine. ko mhm. jàng ñu ne diine bi ci gën mooy l'islam. wa man yabtaqi xayra islaamu diinan fan yuqbala ufira ah. min xaasirin lii waxu yàlla la. du ko kenn. yàlla mën diine fa yàlla muy l'islam. Mm. te ku sàkku diine bu dul l'islam yàlla mën kenn du ko nangu. lu tax kenn du ko nangu mooy moo tax. doomu aadama yi nag dañ dem ci jamono day mel dañoo fàtte lislaam day mel ni ko fàtte borom ko dañ mel dañoo fàtte lislaam donte ñu ngi ci waaye day mel ni koy fàtte lu tax ñu koy fàtte mooy alquran kon ñun ñëpp daa ko de alquran mooy astaqu qaa'il dëgg yëpp bi dajee bis génn ko dëggam mooy alquran parce que yàlla moo ko dëggu ñëpp comme yàlla moo amul ñëpp ci yàlla kàddoom mooy lislaam kàddoom kon maanaam kon mooy alquran yàlla waxoon ci alquran ne fa in tanaasatum fi shay'in faradu ilallaahi wa rasul ñaari jullit buñ xëccoo yi mbir nañ dem ci ca arxon yàlla ak yontu mu àtte leen yàlla bu taxaw bi ñu àtte bu taxaw gisuñ ko duñ ko mooy yàlla bi ñu àtte mooy arxuraan mooy waxu yàlla kon moo ñu àtte xadis mooy yontu sam aussi kon moo ñu àtte lii mooy lislaam léegi nag bu ñu toppee loolu nag kon su boobaa ana islam boobu lay boobu boobu ana alquran akademi yi yu dëgg yi ana ana hadis kon nekkee wax ci laa waaye gëmuñ ko hmm. la tax mooy Palestine hmm. réew jullit lañ. Hmm. réew musulman lañ. ndax tey lu tax ñu nekk musulman ñoom seen fitra mooy lislaam. Hmm. comme nangoon nañ ko loolu la léegi nag lu tax nag lislaam nekk dina jàmm pare te ñooñu lislaam ci boppam ñoom mu nekk benn. coono na lool. islaam am na doole. mais ñooñ islam ñoo néewal doole seen bopp moo tax ñu moo tax islam ñu ne islam amul doole islam am na doole de. islam kenn mënu ko néewal doole. ñooñu islam na ñoom ñoo dégguwul ci seen dégg pas-pas bi war a am ci islaam loolu amut. soo ko defee nañu jël exemple bu gàtt rek. léeg nga gis benn dëkku islaam mu ngi nii. réewu islam mu ngi nii islam yi ñëpp ay réewu islam la. nga gis ab ab ab yéeféer boo xam ne mu ngi taxaw fi ne day dóor benn dóoru benn dëkku islaam comme lu mel ni Irak comme lu mel ni. Euh, nu mu tuuti Kadhafi euh, yooyu yëpp léegi waa islam may leen baas seen réew pour ñu mën a dóor seen mbokku jullit léegi ana islam te yàlla moom wax ci alquran ne lay tax si moom i ne kaafiri na yàlla mu ne amul yàlla nga mu ne kenn amul droit ci l'islam nga bàyyi ñu gëm yàlla di andi di ànd ak ñi gëmul yàlla yàlla ku ko def rek kéefir nga kon nag tey te ñun tey waa l'islam da nga gis tey day mel ni que ñun dañoo bañante ñun ne ñoo bañante ñun dañoo bañante bañante ba nga xam ne dañuy jël benn yéeféer bu ne ci àll ba nga xam ne ñun moo nekk suñu noon te mooy suñu noon nag te ba pinc yàlla yéeféer day nekk suñu noon hmm. léegi nag ñoom dañuy ñëw fexe yow nax la dem ba sa réew pour dóor réew julit lii dafa xaram ti fàqante li mën na ci àdduna tey Saddam noonu lañ ko pexeelee barey ko nu mu tuuti euh, Kadhafi bëri nañ bëri nañ kàddu baari kàlla loolu nag moo dal tey Israël bis nag tey mm. israéliens yi mbooleem xeet yëpp yëpp yëpp ñi ci gën a bon mm. gën tey saay saay mu yahudi xeet yi gën a bon àddina alaxira si mboolem noonu nekk noonu islam naka jëkk ñoo noonu islam bi gën a fogg ci noonu islam yi mooy ñoom mm. mooy yahudi léegi nag ñu xam ñun xam nañ loolu te ñu lañ nekk xam ne ñi ngeen suñ noonu kay mais waruñu xarita ñoom arxam ñu ko xaraamal lay taxasul kaafir moom ne yàlla ko wax yàlla mën a bu leen jël yéen ñi gëm yàlla di ànd ak ñi xartako ak ñi widd yàlla képp koo def loolu yàlla dafa mën a def nga lu xaram mm. te te ñun lii moo tax tey nañ seet démb parce que démb kan mu ngi war a fil tey bu ñu xoolee yonteele Isa alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. Isa yahuud yii ñoo ko doon fexeel pour rey ko yonteele instant ba ñoom sax ñoom den ba ne rey nañ ko waaye alxuraan moo wàccee ayar yàlla moo ne déedéet wax leen dëgg instant réew leen ko mm. instant wa maa qatalu wa maa salabu walakin subalu ba rafalahu illa yàlla moo ko yëgal mm. kon instant yàlla yàlla moo ko moo moom yow rëyu yàlla moom nee na maa ko yëgal sama bopp mm-hmm. waaye ñoom yow ñoo ko doon fexel porey ko nag ah, neen yun taale Yaxya Yaxya mm. yàlla mi yàlla wax yàlla yaa Yaxya ku sa kitab bi quwa Yaxya moomu ñoo ko fexel ba rey ko kon yàgg na ñoom kon mbon ngi yàgg na ñoom lool léegi nañ bàyyi Yahya nañ bàyyi Isa nañu kii xam ne mooy sang minaafoon yi mooy tal ma alisatu wasalaam nga xam ne mooy saabul di islam yontu bu rëy boobu nag mooy yee ko posone woon hmm. yóot yi ñoo ko posone woon parce que moom nekk du diñ ci moom di diñ ci ci moom ba ni mu faatoo sallallahu alayhi wa hmm. kon yahood mooy kan est ce a nekk suñu soppee suñ noonu la du fe duñ fekk bu nekk gis nga yéeféer hmm. yéeféer ba ca France ak ba ca Italie ak ba ca Espagne ak ba ca ak ba ca ba ba ca ba mu jeex yéefar fokk duñ mës a nekk soppi islam. ñu wax islam ñoo ñàkk fayda rek. ay noonu islam a doon luñ la man a wax du dëgg day la pexeel rek. dañ lay fexeel donc fexe jël ay pexe danga ci nekk ñoom waaye a bëgg waa islam. ndax ñoom day wax yonent islam ko ñun. yàlla mën a yonent bi ñii duñ duñ la mën a gërëm lu nga bàyyi sa diine ñëw ci ñoom. waaw fekk dafoo lii topp seen diine duñ la mën a gërëm. kon loolu yàlla wax na yonent Alxuraan wax ñu ko pare. Mm. mais mais ñun islam pourquoi amuñu pour que ñu gàtt xel pour que ñuy iñaanante ñun mën nañ am ne dëgg la kenn ku ne am nga pas-pas boo gëm. Mm-hmm. dëgg la kenn ku am nga pas boo gëm. waaw ànd loolu nag ñun dafa am benn pas-pas ñoo ñoo bokk ashron lay la wachan morsulaay mm-hmm. ñoo bokk iqama salaat mm-hmm. ñoo bokk itaaw zakat ñoo bokk sawm ramadan ñoo bokk hajjul bayti ñoo bokk benn yunti yàlla moom sallallahu alayhi bokk benn yàlla bokk benn dina muy islam bokk benn tiir bokk benn xibla ñu bokk mu ëpp liñ ñu bokk ñun moo ñu ëpp moo ëpp foofu li ñu war tàqal ñun ko su boobaa mm-hmm. kon bu fekkee mé mangoo nañ ci lii xam ne ñoo bokk lii mm-hmm. léegi nag bu gisee am noonu bu ñu fa songuñu ñun waa islam yëpp dañu war a taxaw nekk benn say nekk benn buum mm-hmm. loolu Alxuraan waxoon wax tasimu bi la a wala tafarraqu yàlla mu nekk la benn buum goo xam ne du ngeen tàqal ko mukk ba islam tey bu ñu amoon am islam am doole ah ñun ñoo jublu am nañ doole. parce que tey boo xoolee réewu islam yi yëpp ñi da islam yi nga xam ñoo di islam tey. ñëpp ñi am na ay pétrole ñi am na ay gaz. ñi am na ay matériel lu ne am nañ ko lu ne. américain ñu am am doole ci ñun la ñuy suqalikoo. Hmm. xoolate Arabie Saoudite. nga xam ne tey moo doon war nekk imaamu islam yi parce que yun la juddoo mooy dëkk bi nga xam dëkk yàlla yàlla moo tax dëkk ba subhaana asra bi habdi laylan min masjid haram yàlla tagg dëkk bi taggoo taggoo ba takk yun feeñ fa Arabie Saoudite goo tey ñoo gën a yës si àdduna tey ñoom tey ñoom ñoo gën a xaritu ak américains yi ñoo gën a contre tey euh, palestiniens yi loolu Arabie Saoudite boo xoolee réew yi islamiya amatuñ doole parce que ñoom ñoom ñoo jubuwut lii may sonal ñun ñëpp kon li ñu doon may doole mooy ñun ñëpp ñu fexee nekk benn waxta si moom bi yàlla waxoon ñu fekkee nekk benn ci benn buum joba say di waxandoo di xàccandoo di dóor bu ñu ko defante gars yi waaye nag fekk ñu ngi tàqalikoo nii moo tax yéen sax waxoon ne aljamahatu rahma wal fakkatu hansab ma ne mbooloo mooy yërmande teqalikoo mbugal la ñun ñun ñun ñun de dañ leen teqalikoo kenn ko ak loo kii dee gëm bi sax kii gëm bi sax ñu ne ay noonante ba nga xam ne lu del kii sax yow ko ko yii nii waaye yéefir ñoom ñoom dañoo nekk benn say loolu la gis nga nag lu ñu say say say say say hmm. bu njëkkee bind woon man ñu ñun lu ñu baax a baax a baax te mënuñ déggoo waaye dañuy man moo tax moo tax mag ñi daanañ wax ne hmm. soo demee taxani matt hmm. say matt ba indi ko say matt wa soo ko bëggee damm ndax da ko mën a ñooy déedéet waaye soo ko taxalee par benn benn waaw da ko damm ba mu moo tax dama indi dama indi benn parabole benn lépp hmm. dafa am ñeent nag yu àndoon nagu nagu xonq ak nagu ñuul ak nagu weex ñett nag pardon hmm. bi ñu àndee ñoom ñett nag di wuti bu ne ba ca àll bi gaynde dina leen fexeel rek nag yi dër dara àndand ak nekk benn rek génne mu leen dara ñu koy def def ba benn ba ne mënuñu fexe ba songu leen benn géñ benn ñoom ñett ah, ñu dem yàgg da benn benn genn gu benn genn ñëw ci benn nagu weex wi nag ah nagu ñuul gis nga ko mu ne gis ne nee da ngaa weex nee na yow soxuloolu la nee yow da ngaa weex doo gis tey dama ànd yow de dem na yoonam bu yàggam nee na yow ah, rek genn nga fekk fa fër ko te suba sa mu ñëwaat ci ci nagu ñuul na ko nangu ñuul wi ah ana na na na naka weex bi ma al démb mu ne ko ko tey mu ne ko nee na yow da ngaa da ngaa ñuul mënta ànd yow. kooku béy deeku yi fóot ko. keneen ki des ñu ñu ful ko. ah wallaay te bañ àndee nekkoon benn kenn mu ne woon dara waaye bi ñu teg la ko rek ñu mën ñu ñu ñu ñu duma leen. kon islam yi a saab. bu ñu dañoo ñëpp nekk benn jëmm. kenn ñu maanaam dara. waaye fi ñu teg la ko rek gars yi dañu maanaam dara. macha allah loolu mooy dëgg tey ma dëgg alquran dafa wax ne. yonent yàlla ma sam jàkka ji nga xam ne mooy troisième jàkka ci ci l'islam néeg yàlla bi gën a fort ci néeg yàlla ñett la masjidu haram masjidu haasa masjidu aqsa mm-hmm. ñett yi ñoo fi nekk alquran na moo wax subaana sa asra bi habbi laylan ñu ne ko fan la mu ne masjidil haram ila masjidil aqsa yàlla mu ne yuntu moo koy ràññee ne jógee na masjidil haram dem masjidil aqsa masjidil aqsa nag mooy réew mu sell mu sori bu sell tabarkal loolu yàlla wax ci alquran kon yàlla foog nga jàkk ji ba ba ëru ko lii daal dama yegg tagg jàkk ji nag mu ne masjidil aqsa bi allazi barak na awluhu li nurihu min ayatina inu samil basir yàlla ba ko tagg waaw nii boobu nag bu ñu sàgg na ñun julit bi eh. mais du du Palestine moomuñu réew mi. Mm. réew mi jullit yëpp a ko bokk. dafa am loo xam ne jàkk joo xam ne jullit yëpp ko bokk kon bu ñu ko bàyyee Palestine léegi dañ ko ñun ñëpp dañu waroon tiir xam ne suñu jàkk ñun ñëpp yàlla ñu ko tudd ñun islam dem fa def fa karaama yu yam fa def lam lu mu fa def dem na mu jéem di yéeg pour julli julli yi yénti lan mooy dekki bi mu dekki yénti yëpp dekki mu julli ñaari raaka julli jooy jàkk foor na xam ngeen ne loolu isaara bu rafet la léegi jàkk joo ne buñ sàggan ñun julli yi di bañante di xërante kenn ko ne bëgg am ndam sa morom ma bañ ñu bàyyi yéefee ñu jël ko ma ñu ñooy perte